en direct ci télévision Futur Média et puis ñu di waajal ay plateau yu am solo ni ñu koy defee euh, saa yu këru diine yi Sénégal euh, woote Marcel Farba Maroun euh, ñu jàll ci un jour un chiffre tey nag da nga dem ba Ukraine def taxaw seetlu ci li soxal doomu Sénégal yi fay dund. exactement loolu waral ñu taxaw ci benn chiffre mu vingt cinq ñaar fukk ak juróom. comme mm-hmm. pour refléter. Mm-hmm. li nga xamante moom mooy nombre sénégalais yi nga xamante ne dañoo daw guerre ba am ca Ukraine te actuellement ca réewu Pologne ils sont nag mhm. en sécurité hein, au soir jusqu'au soir en tout cas du 28 février 2022 nombre boobu euh, ñoo fa nekkoon selon donc l'ambassadeur et puis bu ñu sukkandikoo ci kii di tay bu nekk benn étudiant euh, sénégalais bu dëkk foofu ca Kharkiv euh, donc nga xamante ni dafa daal di traverser toute l'Ukraine balaa moo yegg ca poste frontière pour réfugié wu ca ca Pologne daal di ne waa RFI daal ñoom dox nañ lu ëpp ñaari fukk ak ñaar fukk ak juróom ñaari kilomètres ba frontière diggante Ukraine ak Pologne seddoon na trop Europe ragaloon nañ tamit euh, ba def nañ lu ëpp xaw a ëpp tuuti ñaari euh, fan foofu euh, à document bi nag moom amul woon dara ak moom bu dul document yeeg diplôme yi mu yi mu dencoon nag bu xënte bi bëri woon na trop et puis léeg-léeg ñu doon wax ay mots yi nga xamante ne ay mots yu déplacé la à leur à leur endroit. Mm. nag bëggul utiliser mot racisme ah moom lu mu bëgg jàpp rek fu mu nekk nii ndaxte le mot racisme c'est quelque chose qui pèse trop lourd ci mm. li mu wax nee na daal moom polonaise bi nga xamante ne daal teral nañ leen euh, ca ca réew ma ñu leen di laaj naka ñu ngi leen di nemmeeku pour xam ndax dañoo gaañu wala déet mm. euh, ñu ngi leen di euh, jox itam li ñuy li ñuy lekk ak lii di mel et puis mm. ñu ngi leen di traité daal de la même façon que ukrainien yi nga xamante ne ñoom tamit ñu ngi leen hébergé foofu ca mm. Pologne soxna Fati situation doomu Sénégal yi foofu ca Ukraine ak Pologne mm-hmm. voilà bu ñu sukkandikoo ba léegi ci Pape Diop nekk ambassadeur Sénégal donc Pologne ak ak Ukraine donc on rappelle que ñaari réew yi lay lay couvrir la nekk ambassadeur bi Euh, moom nee na nag euh, gannaaw ba guerre bi amee nag dañu conseiller seeni compatriotes euh, yu nekk foofu ngir ñu nekk en sécurité et puis mm. ñu éviter rek lu jëm ci wàllu déplacement risqué période de guerre donc naturellement et pour ceux qui optent ñi nga xamante ne dañu bëgg jógee ci boobu la réew eh bien joxe nañ information yi nga xamante ne day jëm ci wàllu point ak centre d'accueil yu ñu tijji ci frontière polonaise bi ak orientation également vers Varsovie donc di capitalu Pologne ne nag am nañ possibilité bu leen neexee ñu toog fa 15 jours après quoi bu loolu weesoo. bu leen neexee ñu delsi fii ci Sénégal wala ñu dem ci beneen euh, pays européen euh, bu fekkee ne bien sûr am nañ droit dugg ci yooyu les euh, réew et puis nee na état du Sénégal ak ministère des affaires étrangères ñu ngi daal activé wu ngir fexe ba coono yooyu yëpp daal di daal di jeex et puis leur mm. offrir la nourriture et l'hébergement mm. temporaire foofa ca capitale polonaise bi mm. donc le ministère travaille également pour benn plan de rapatriement bu fekkee ne situation bi da koy exiger après 15 euh, jours euh, yooyu noonu euh, donc ñu gestu xool communauté sénégalaise bi nga mm. xamante ne Ukraine la nekk ils sont mm. à peu une centaine mm. de, Sénégalais yu nekk Ukraine selon toujours Pape Diop l'ambassadeur du Sénégal en Pologne et en Ukraine ñoom nag ils sont regroupés ci benn association bu ñu tuddee association des Sénégalais d'Ukraine ñoom nag principalement ay étudiants la ñu wala ay anciens étudiants yi nga xamante ne ba seen jàng daal daal di jeexee dañ di bëgg rek toog et puis quelques loolu ak mm-hmm. euh, Pape Djibril Diaw donc euh, l'UA ah c'était c'était ta question. peut-être voilà, c'était ma par rapport ak voilà am na également ñu ñaawlu mm-hmm. euh, traitement bi nga xam ne ñu ngi koy def. africain ba Union africaine mm-hmm. alerté na. exactement donc par la voix du président Macky Sall président en exercice de l'Union africaine ak tamit ki di président commission Union africaine boobule Moussa Faki Mahamat ñoom ils sont particulièrement préoccupés. Euh, ndax information yi leen di rapporter selon euh, lesquels euh, citoyens africains yi nga xamante ni côté ukrainien la ñu nekk di jéem a jéggi frontière ngir mën a en tout cas daw boobule boobule guerre fu mu nekk nii dañ leen di tere le fait que ñu daal di traverser frontière bi pour nekk en sécurité mm-hmm. ñuy rappeler que les deux présidents ñoom ñu ngi fàttali nekk toute personne nit ku ne am na droit franchir franchir internationale bu fekkee ne genre conflit yu mel ni dafay bu fekkee ne conflit sax dafay am et à ce titre euh, dañu war a ñoom tamit bénéficier des mêmes droits euh, mm-hmm. ngir mën a traverser pour se mettre à l'abri euh, boobu les conflits en Ukraine particulièrement quelle que soit sa nationalité ou son identité raciale sànq Ibou Diouf mu rappelé mm-hmm. ci actu inter bi na nag les présidents exhortent tous les pays à respecter le droit international def de la même empathie et du même soutien envers toutes les personnes qui fuient la guerre nonobstant leur identité raciale donc mm-hmm. il propos un communiqué de l'Union africaine qui nous est parvenue euh, hier soir mais bu ñu sukkandikoo euh, ci ambassade Ukraine fii Sénégal c'est juste que parce que actuellement selon le protocole établi pour traverser la frontière eh la priorité est donnée aux femmes et aux enfants donc loolu waral euh, fu mu nekk ni góor yi ñoom ñoom la ñu daal di téye daal ci ci ci boobule frontière mm. ñu gestu xool plus en profondeur la guerre en Ukraine mi nga xamante ne dañu résumé ne rek la matérialisation de près d'une mm. 2014 benn conflit majeur mu ngi laal Ukraine ci euh, euh, en tout cas notamment avec les séparatistes de Donetsk et Louhansk euh, dans la région du Donbass à l'est de l'Ukraine 11 mai 2014 Donetsk ak Louhansk daal di autoproclamé wu nekk ñoom ay indépendant la ñu bokkatuñu ci ci Ukraine mu di donc benn décision bu provoqué benn conflit particulièrement meurtrier diggante forces armées ukrainiennes ak séparatistes yi en huit ans on dénombre à peu près personnes yi nga xamante ne ñàkk nañ ci seen et puis toujours en mooy ay ay ñuy naan accord de Minsk bi nga xamante ne capitale Biélorussie la foofu lañ daal di signé yooyu les accords mm. euh, Russie seen représentant yi ak waa Ukraine ak deux républiques séparatistes yi daal di conclure ne ne euh, dañuy daal euh, jël pause waaye malgré tout cela malgré que la pause a été signée officiellement combat yi continué nen ci diggante ñaari camps yi particulièrement dernier mois yi la daal di intensifié wu ñuy fàttali que ces accords ont été signés sous les auspices de la sécurité opération en Europe pour justement euh, mettre fin au combat dans le Donbass ba pare instaurer benn cessez-le-feu mhm. immédiat soxna Fatick. aywa de <laughs> euh, géographiquement hein Donbass région la benn bassin hein Donbass euh, bassin frontalier de la Russie. Mhm. bi nga xamante se trouve sur la rive septentrionale de la mer Noire di concentrer ensemble activité minière ak sidérurgique bu territoire ukrainien. Mhm. ci biir Donbass boobu noonu maa ngi ko doon wax état séparatiste yi république populaire. populaire de Donetsk ak république populaire de Louhansk ñoom ñoo fa ñoom ñoo fa nekk et puis à part la richesse minière et sidérurgique de cette zone mu di benn partie région bi nga xamante ne foofu russe lañ fay làkk ba pare di utiliser le rouble euh, comme comme monnaie euh, monnaie bi nga xamante ne euh, monnaie russe la donc dans un territoire ukrainien loolu doon benn terrain largement conquis donc pour Vladimir Poutine l'invasion russe ñu dellu si tamit rapidement malgré menaces sanctions internationales yi Vladimir Poutine daal di décider

léegi nag prendre cette zone de l'Ukraine c'est donner la possibilité aux États-Unis mhm. euh, ñu pointer seen de quelques centaines de mhm. Poutine bëgg ko nangu ce qu'il est en train de faire c'est sauvegarder l'intégrité et la souveraineté de son État mhm. non seulement de protéger ses acquis waaye tamit il a un rêve de reconstituer l'empire russe Dernière question Marcel Farba Maroun des pourparlers commencé nañ ko entamé négociation démb yi lan la jur lan lañ ci mën a jàpp. rien si j'ose dire rien parce que démb comme ni nga ko waxee euh, ay ay pourparlers yu jot am entre Russie ak Ukraine euh, ca frontière entre Ukraine ak Biélorussie lañ daal di lañ daal di euh, amal foofu aucun ci ci contenu bi ñu bi ñu jot a rendre public. amul mm. daal li nga xamante ne mën nañ ko fa jàpp lu dul que délégation russe ak ukrainienne yi dañ daal di daal ñibbi ngir consulter ku ci nekk ci capital ak respective am li ñu jot a waxtaanee foofu mm. démb donc. donc les partis ont établi une série de priorités et thèmes boo xamante ni day laaj une euh, qui demande certaines décisions euh, balaa benn deuxième round pour parler loolu daal la ñu mën a jàpp ne mm. beneen deuxième round dina benn deuxième dina am ci wàllu négociation yi euh, mm. une nouvelle rencontre amaguñu date bi nag qui aura bientôt lieu à la frontière polono biélorusse soxna merci beaucoup Marcel euh, dommage pour toi un grand amateur de kafe maa ngi dënd ak yow di naan sama kafe parce que mënoo woon boole euh, présentation bi ak kafe gi da nga jël sa wàll mais en attendant baal ma naa baal ma naanal la sa gaa xamul ne maa yow compétition café la fii <laughs> Marcel Farba Marouna euh, moom la ñu àndaloon ci un jour un chiffre mais fàttali ne euh, ci kanam ñaareelu pàcc bi di ngeen am entretien bu am solo boo xam ne euh, Mortala ak toute l'équipe derrière defal nañ ko ki seen diggante ak Pape Djibril Diaw di doomu Sénégal boo xam ne sax moom li nga xamante ne si moom mooy Ukraine fa la nekkoon di football malheureusement dafa daw làqu ji comme ñëpp ma nga Paris mais waxtaan na ak ñoom Chérif laata ñuy dem RFM ndax 7 h malheureusement euh, pàcc bu njëkk bi euh, yaakaaruma ne nañu am temps dugal ko sinon ñu dem seetaan ko ñëwaat euh, wala Chérif ñu def taxaw seetlu ci Ukraine ak situation ba ak Marcel ak leeral li ci indi. waaw leeral yi li li tey wax euh, lu xel la mooy doomu Sénégal et je pense qu'il est très responsable parce que nit aussi da ngay am kóllëre bu dee da ngaa nekk cim réew am fa teraanga mu dalal la mm-hmm. jafe-jafe am yu tam guerre gis nañ africains yi commencé di leen xamal quelle que soit la situation dañu nekk ci période de guerre mm-hmm. te bu nekkee ci période de guerre panique day am nit ñi tiit di daw te bu ñu daw aussi comme Ukraine ni mu demee je pense que bu dee voyage la il faut comme ñu organiser ko neen ko organiser mooy les personnes vulnérables ñoom ñooy priorité parce que gis nga pëccoxoo gi am nit ñaa ngay daw di dugg ci terrain yaag yu ni mel pour ñu traverser leen ñu dem franchir la frontière polonaise loolu tax bu amee nag tout tànk yi ak jigéen ñi ak mag ñi je pense que ñoom ñoo leen ñoom ñooy priorité après ñeneen ñu doog a ñëw parce que boo xoolee sax Pologne seen waxambaane xalaatuñ génn réew parce que dañ leen réquisitionné ñu jox leen donc moom moo tax ngay dégg problème racisme xëy na mën na nekk mañ a nekk problème racisme mais organisation la ndax ni mu demee organisation et li am solo bu am solo mooy am na ci doomu sénégalais yoo xamante ni ba ñi ngi Pologne ca frontière ba ñun ñun ci jot a jàngoon dégg ambassade mi ngi def lim mën mais il faut que état jàpp ci wàllu koppar parce que président association des sénégalais yi nekk ci Ukraine moom mënagul dem parce que dafa yu mu am ngir fekk ko ñu mën a daw ci loolooy jafe-jafe je pense que mm. bu fi mooy Sarr ñëwee question yooyu dinañ ko gën a aborder su ko defee doomi Sénégal ya fa des mm-hmm. Mm-hmm. ñu mën leen a bàyyi ñoom ñu traverse frontière bi dem Pologne waaw ndax ambassade da mi ngi ci def euh, li kémta lay kàttanam Moïse Sarr secrétaire d'État euh, euh, chargé des Sénégalais de l'extérieur moo naxa nekk suñu gan ci ñaareelu pàcc bi Malick waaye daw baraw ci ngóor la bokku de waaw bu guerre xësee am rek. képp ku nga xam ne euh, yaakaar nga ni fi nga nekk nekkoo fa ci sécurité dangay ngay jéem a daw làqu. moo tax ñu tudde leen ay daw làqu. donc euh, réfugié. Mhm. Euh, la ñuy doon te réfugié de guerre la ñuy doon traversé frontière bi nag ku ne xam na ne du yomb. Mhm. ndax fu nga xam ne ñëpp a ngay daw di sauvé wu. Mhm. ku nekk ngay xool nan ngay def ba rëcc. loolu dina indi pëccëxoo. mais du tere aussi réew xool nu ñuy organiser ba lépp jaar ci yoon mais information yi aussi nañ koy xool. nuñ koy divulguer parce que dafa sensible ba nga xam ne. boo nee doomu Afrique yi ña nga leen di métital di leen di leen di leen bunduxataal. di leen indi euh, ab beddi compté. loolu mën na mën na frustré africain yu bëri. parce que sax Union africaine. Hmm. Euh, communiqué bi nga xam ne def nañ ko. Hmm. donte beneen doomu Sénégal nee na moom lañu ñu defal ñeneen ñi lañ ko defal. loolu wane na xëy na. ay cas isolé la. mais nañ ko surveiller de très près. 7 h jot na sëñ Serif Bi xaju fi. Diamé Diouf conseiller spécial en éducation bu président de la république la Babacar Fall di dalal à tout à l'heure sëñ Serif baalal ma ko rek baalal ma ko 7 h jot na jërëjëf à tout à l'heure chers téléspectateurs